champions bi lu ñuy seetaat lay doon te ñoom nag ni ñu dooree ligue des champions bi baaxul ndax ñeenti match la ñu jongante am ca benn victoire képp tey ji nag li ñu bëgg moo di am ndam ci kaw Galatasaray bu dee waa Lens ànd ak Nampalys Mendy ñoom tey ji ca Angleterre la ñu jëm Arsenal bu Gabriel Jesus la ñuy fekki li ñu bëgg nag ñoom it moo di doxal am ndam bu dee waa Real de Madrid ànd ak Bellingham ñoom tey ji Napoli la ñuy dalal Napoli nag li ñu bëgg moo di tàggat ci ndorte saison bi jamono ji téqalikoo nañu ak moom am nañu coach bu bees tàq li ñu bëgg moo di ànd ak Walter Mazzarri mi leen di tàggat jamono ji fàtte Rudi Garcia Real de Madrid nag la ñuy jàkkaarlool bu dee waa Real Sociedad ak Inter moom duel à distance la ñoom ñaar ñooñee première place bi la ñuy xëccoo Real Sociedad tey jii Salzburg lay jàkkaarlool bu dee Inter moom day fekki Benfica kon ñoom ñaar duel à distance la bu dee waa Bayern de Munich ànd ak Henry ñoom tey jii Copenhague la ñuy dalal ñoom nag qualifié nañu ba noppi li ñu bëgg moo di dëggal seen bopp ca première place ba démb it am nañu qualifié muy waa Borussia mun ñoom qualifié nañu ak waa Atlético de Madrid bu dee waa pari moom dañoo rëcc démb ndax kan kat Newcastle moo leen fekki woon mëne leen benn bal ci dara ca ndaw ga nag ci la ñu am penalty égalisé ba léegi nag seenu qualification leeragut muy waa pari waaye mbir maa ngi ci seeni loxo tey jii nag ñaari match képp mooy am bu 17h45 jotee Séville yooyee Eindhoven Manchester United di fekki Galatasaray ñaari match yooyee képp nag ñooy door 17 h cinq bu 20h jotee nag ci la yeneen match yëpp di door Pape Gueye tamit mi ngi ci journal bi moom nag dañu ko ajoon ñeenti weer yoo xam ne du dugg ci terrain football loolee nag daanaka jeex na tàkk léeg mu dellu si waat doxal laaj bi samp kay moo di est-ce que dina mën a dem ca Coupe d'Afrique ba jàppale équipe nationale bu Sénégal moom Pape alasaan Gueye jamono ji nag ñeenti weer yi ñu ko ajoon d'Afrique ba jàppale Aliou Cissé am du ca dem loole mooy laaj bi samp ma leen koy laaj ci commentaire yi kon nañu ko ñaanal nag bu dellu si waatee niveau ba mu nekkoon mu wéyal ca muy Pape Alassane Gueye ñu jugee stade yéenekaay dem groupe future Média fekk fa record yéenekaay Nampalys Mendy la surnal bi fësal ci xët wu njëkk wa tey jii nag mooy ànd ak waa dem ci réewu Angleterre fekki fa Arsenal ak Mikel Arteta li ñu bëgg nag moo di def jaloore ji nga xam ne defoon nañu ko ca match aller ba ñoom ca match ale ba ñoo dalaloon Arsenal duma ko ñaari bal ci benn tey jii nag li ñu bëgg moo di amalaat jaloore jooje ànd ca ak doomu Sénégal bii di Nampalys mindi Lamine Camara tamit mi ngi ci journal bi kii wax ci moom nag moo di président wu Metz di club ba mu nekk nee na doomu Sénégal bi de jour bu mag la am na talent te personnalité tamit am na ko maanaam kilifa la kon nañu ko ñaanal ndax footballub Sénégal am na lool yaakaar ci moom muy lamin Camara ñu jugee Sénégal équipe Kylian Mbappé ak waa Paris le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa leur destin en main jamono jii de seenu qualification ñoo ngi ko yor ci seeni loxo sunu yaafusee mën nañoo bañ a qualifié waaye bu ñu góor góorgóorloo am ndam ci match bi mujj rek mën nañoo qualifié Borussia Dortmund la ñu war a jàkkaar lool démb dañu doon dalal Newcastle mu mëne leen benn bal ci dara ci ndaw ga nag ci lañu ñu am penalty penalty boobe sax cete na lool ndax quatre-vingt-dix-huitième minute ci la ko mu dugg loolee tax na nag ñuy wéy di am yaakaar match bi leen dese ñu war caa jàkkaarloo ak Borussia Dortmund suñu ca amee ndam rek kenn du leen nettali huitième de finale muy waa Paris bu Kylian Mbappé. ñu jugee France wutali Londres Angleterre fekk fa Mirror Sport match bi doon dox démb ci diggante Paris ak Newcastle la surnal bi fësal ca xët wu njëkk wa waa Newcastle ànd ak Angleterre nag dañoo mer ba futu ci penalty bi nga xam ne waa Paris am nañu ko démb ndax penalty boobee nee nañu dafa taq suuf lool ndax FIFA li mu wax moo di bal bu dalee ci sa yaram fenn dal ci sab loxo loolee du penalty penalty bi ñu jox Paris démb nag noonu tëddee jamono ji nag waa Newcastle mbir mi nekkatul ci seeni loxo maanaam seenu qualification su fekkee bëgg nañoo qualifier li ñuy def moo di bu ñu jàkkaarloo ak AC Milan gagné ko ba noppi ñaan Borussia Dortmund gañeel leen pari loole bu amee rek dinañu wëy di des ci Ligue des Champions bi wala ñoom ñu gagné AC Milan ba noppi ñaan Paris niil waaye ñoom bu ñuy dóor AC Milan dañ koy dóor ñaari bal ci dara wala ñu gañe ko ñetti bal ci dara su fekkee Paris dafa niil ak Borussia Dortmund bu boobaa mën nañoo qualifié kon nag mbir mi nekkatul ci seeni loxo muy waa Newcastle démb nag 1-1 bi métti na leen lool ndax nee nañu penalty bi jaarut yoon muy waa Newcastle bu Ejiho Manchester City tamit ñoo ngi ci journal bi ñoom démb RB Leipzig la ñu dalal naam dañ leen mëne woon ñaari bal ci dara waaye ci ndaw ga ñetti bal ci ñaar la match ba jeexee Manchester City nag qualifié woon na bu yàgg ñoom ñaar ñooñee waaye première place bi lañ doon xëccoo muy moom ak RB Leipzig jamono ji nag officiellement Manchester City moo jël pee bu dee wujju Manchester City di waa Manchester United ñoom tey turki la ñu jëm galatasaray la ñuy fekki match boobee nag li leen ca war moo di am ndam ndax wasin rek mbaa dem tool suñu ca amul ndam seenug des ci ligue des champions bi dina takku suuf lool ndax bi ñu ko dooree ñoom ak tey jii benn ndam képp la ñu amagum tey jii nag li leen war moo di ànd ak Eric Ten Hag doxal am ndam ca Turquie ñu jugee Londres Angleterre wutali Espagne wàcc Madrid fekk fa Marca yéene kay waa Atlético de Madrid rawatina Hermoso la journal bi fësal ca wu njëkk wa Atlético plus Hermoso ndax défenseur bi démb moo leen sauvé dugal bit bu rëy lool Feyenoord la ñu fekki woon gañe ko ñetti bal ci benn ñaari bit yépp nag contre son cas la ñetteelu bit bi ki ko dugal moo di Hermoso mu nekk bit bu rëy lool jamono ji nag qualifié nañu li xaar moo di bëccëg bi mujj ñu xëccoo première place bi ak waa Lazio de waaye jamono ji moom waa Atlético de Madrid kenn du leen nettali huitième de finale ya waa Real de Madrid ànd ak Bellingham it ñoo ngi ci surnal bi ñoom tey jii Napoli la ñuy dalal li ñu bëgg ñoom it moo di dëggal seen bopp ca première boobee nga xam ne fa la ñu toog Napoli tamit li mu bëgg moo di am ndam ci kaw Real de Madrid ànd ca ak seen coach bu bees bi tey jii la nag Santiago Bernabéu gépp nag ñoo ngi xaar Jude Bellingham loolu la journal xamle bu dee waa Séville yi ànd ak Sergio mos ñoom tey jii li ñu bëgg moo di dalal PSV Eindhoven am ndam ci kawam naam seen toogaay beggandiwut dara waaye tey jii bu ñu amee ndam dina ñu am wërsëg ngir qualifier ci huitième de finale ya match boobu nag 17h45 lay door Séville mooy dalal PSV Eindhoven waa Real Sociedad ànd ak Taki bo tamit ñoo ngi ci surnal bi ñoom nag jamono ji ñoo ngi jommal Europe ñoom qualifié nañu bu yàgg waaye li bi ñoom ak Inter Angleterre tey jii bu vingt heures jotee Salzbourg la ñuy dalal li ñu bëgg moo di am ndam ci kawam su fekkee Inter fa kastolu na ci kanamu Benfica bu boobaa dinañu dëggal seen bopp ci première place ba muy waa Real Sociedad ànd ak Taki bo ñu jugee Marca yéene kay jël AS yéene kay waa Atlético de Madrid le journal bi fësal ca xët wu njëkk wa mission accomplie matal nañu mbir mi de muy Atlético de Madrid ak Barcelone ñaari club bu espagnol yooyee nañu fekki qualifié woon ci huitième de finale ya bu dee Atlético de Madrid moom li ñu bëgg moo di dernière journée bi maanaam bëccëg bi mujj ñu jàkkaarloo ak Lazio gagné ko mën a nekk pay ci seenu poule bu dee waa Barcelone moom ñaari Joao yi ñoo tax ñu qualifié muy Joao Cancelo ak Joao Félix Porto lañ doon jàkkaarlool gagné ko ñaari bal ci benn ñoom it qualifié nañu te daanaka jël nañu pay ci seenu poule muy waa Barcelone bu Xavi waa Real de Madrid tamit ñoo ngi bi ñoom nag tey jii Napoli la Bernabéu benn poñ képp nag la ñu soxla ngir mën a assurer ñoom it jël pee ci seenu poule qualifié nañu ba noppi mat boobee nag Luka Modric du ca bokk ndax dafa am blessure bu ndaw waaye Jude Bellingham a nga fa loolee la journal bii di AS yéene kay xamle. ñu jugee Madrid wutali Barcelone fekk fa e sport waa Barcelone ak seenu mbégte la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa enfin les huitièmes jamono ji nag Barcelone teg na tànkam ci huitième de finale Ligue des champions ba ñaari at ci ginnaaw. Barcelone tegu fa tànkam waaye bii nag kenn du leen ko nettali li leen ko may nag moo di ndam li nga xam ne am nañu ko démb ci kaw Porto waaye ñaari doomu Portugal yii kat ñoo tax Barcelone qualifié muy Joao Cancelo ak Joao Félix ndax ñaari bit ya am ca match boobee soxal waa Barcelone ñoo ko dugal match bi nag 2-1 la jeexee bu dee Xavi mi tàggat Barcelone bég na lool ay supporteram tamit bég nañu te démb nag gis nañu xar kanamu Barcelone gu bees tàq soppeeku na football taxu kaa baax waaye démb nag doxal nañu football nañu lu rafet am ndam lu ama am solo tax ñu dem ca huitième de finale ya ñu jugee esport jël Mundo Deportivo ñaari João yi la journal bi fësal ca xët wu njëkk wa João et huitième jamono ji nag Barcelone dem na ci huitième de finale Ligue des champions ba li leen ko may moo di ndam li nga xam ne am nañu ko démb ci kaw Porto naam dañu ne bëreet rek waa Porto dugal Pepe mo dugal Pepe bii nag bokkul ak Pepe bu mag bi kii gone gu ndaw la moo dugal dugal waaye dañoo doxal tuuti rek Joao Cancelo égalisé ñu mitan demaat doxal tuuti Joao Félix dugal ñaareelu bit bi tax Barcelone teg tànkam ca huitième de finale ya huitième de finale yooye nag ñaari at Barcelone demu fa waaye bii kenn du leen ko nettali Gavi tamit mi ngi ci journal bi moom nag dafa am blessure bu mitti lool opéré nañu ko démb ba noppi nag opération bi jaar na ci yoon waaye nag opéré nañu ko tekki wul ne balaa yàgg dina dugg ci terrain football balaa ñëw dina yàgg lool waaye lu mën di am nañu ko ñaanal mu wér niveau bi mu nekkoon laata muy blessé bu wéree mu nekkaat ca muy Gavi ndax football am na lool yaakaar ci moom ñu jugee Espagne wutali itali wàcc Rome fekk fa Corriere Formula rawatina Olivier Giroud le journal bi fësal ca xët wu njëkk jooy leen ndax lii jar na jooy ndax kat AC daanaka toog nañu ci Ligue des bi démb nag Borussia Dortmund lañ doon dalal nërmeelu ñetti bal ci benn naam dañu ne bëri rek AC Milan am penalty Olivier Giroud raté ko waaye kat Dortmund bi ñu ko amee Marco Reus da koo dugal Chukwueze dugal mu nekk 1-1 waaye ci cëppaandaw ga nag ñetti bal ci benn la jeexee dortu Dortmund moo am ndam AC nag am na wërsëg ba léegi ngir qualifié waaye nii la mën a demee su fekkee bëccëg bi mujj fekki nañu Newcastle gagné ko ñaan nag Paris dem ca mun Dortmund Borussia Dortmund dóor ko su fekkee loolu am na waa AC dina ñu dese wërsëg ngir des ci Ligue des champions bi loolee la journal bi xamle bu dee waa Lazio de Rome ñoom démb am ñu ndam lu ama am solo Celtic lañu dalal gañe ko ñaari bal ci dara Ciro Immobile moo doublé tax nag ñu dem ci huitième de Mauricio Sarri Maximiliano Allegri tamit mi ngi ci journal bi moom nag effet mi ngi feeñ foofee ca Juve ndax jamono kat valeur club boobee yokku na ko lu ci toll ci soixante-quatre million d'euros loolee nag li tax moo di liggéeyam bu am solo ndax kat Rabiot bu ñu ko doon jaay jamono jii dinañu ko jaay xaalis bu bari par rapport ak daaw te am na gone yu fa nekk tamit jamono ji bu leen Juve bëggoon jaay mën na caa am xaalis bu bari gone yooyee bokk na ci mérite Samuel Iling Junior ak fas yooli ak yeneen gone yoo xam ne yuufe mën na caa am xaalis kon effet Maximiliano Allegri commencé na feeñ foofee ca Juve ñu jugee Corriere dello Sport de Milan fekk fa la Gazzetta dello Sport Olivier Giroud la journal bi fësal ca wu njëkk wala mila en morceaux jamono ji na club boobee ay daggit la ñu ko def li ko waral moo di kat seenuk des ci Ligue des Champions bi lu ñuy seetaat lay doon ndax démb Borussia Dortmund la ñu dalal nërmelu ñetti bal ci benn waaye journal bi nee na ba léegi dese na leen wërsëg nag ngir ñu qualifié ca huitième de